waaw ñun ñëpp la ñun la on l'assume pleinement bi ñu leen di jàpp ci dëkk bi ñuy toog di wax naan bu ñu fàtte victime yi kenn neewul nañ bàyyi ñuy jàpp waaw lan moo tax tey ñu ne lañ leen bàyyi ñu ne lan moo tax ñu war leen bàyyi lan moo tax madame la ministre damay wax ni tey monsieur le monsieur le président de la république mu ne loi jël initiative am moom ci boppam ñun laajuñu ko mu ne dafay indi loi d'amnistie mais man duma ko ne dedet duma ko ne dedet ndax mom la ko constitution may bu ñu bëggee loi d'amnistie ba dañ ci réew mi dañuy indi fii dindi suñu code constitution ne dañ ko ciy dindi kooku su boobaa kenn amatul sañ-sañu wax ci loi d'amnistie ko loolu nag mën nañ cee liggéey suñu noppee en attendant madame le ministre dafa am dañoo produit livre blanc wax ni ay coupable ñu ngi nii ñi dañoo rey nit fii taxaw nañ sax ne ñun ñoo ñun ñi dee ñun ñoo leen rey am ñu taxaw ne ñun rey ñu alkaati moo rey wala gendarme moo rey victime yi bu ñu leen joxee tur jox leen jëmm ba noppi te ñu mën leen lim te xam leen ñun ñu mën leen a lim te xam leen laa wax bu kenn mbubboowoo ki takk bracelet parce que ñu jàpp ko du ngeen seeni mbokk doo mbokkam waa ñoom ñëpp bu ñu defee réquisitoire ba ni xam nañ leen ba noppi quest fait maanaam ni préoccupation fondamentale bi ñu am bi mën a yóbbu suñu conviction mooy ñu wax ñu ndax ki yor ngànnaay ak boor bu mu mën ci bokk Birame Souleye bu yoree ngànnaay ñu gis ni yor na ngànnaay loi d'amnistie bi ndax day muccal Birame Souleye waaw wala déet mooy suñu préoccupation fondamentale de quelque bord que ce soit ki wàcce ba kenn ku torturer ku def acte dégradant suñu question mooy ndax loi bi ni muy mëdde

Merci, euh, Monsieur le Président, Madame le ministre, Monsieur le ministre, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes chers collègues. Monsieur le Président, l'amnistie est une modalité de régulation sociale et politique par la concertation, le dialogue, pour la formulation d'une décision collective. À l'origine, elle signifie oubli c'est un acte public solennel et collectif par lequel les fautes d'une période sont pardonnées au nom des intérêts supérieurs de la nation avide de cohésion. C'est une pratique connue de toutes les sociétés du monde et de tous les types de régimes depuis l'Antiquité, je l'ai dit en commission. Et je rappelle que c'est en 405 avant Jésus-Christ qu'on a vu le premier décret de l'amnistie à Athènes. Lors de la Révolution française de 1789, une loi d'amnistie avait absous les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis en Allemagne ont été amnistiés. Quelqu'un me disait que oui, ils n'ont pas été jugés. Je l'ai rappelé en me disant qu'il a parlé du tribunal de Nuremberg. C'est après qu'on a amnistié les nazis. Oui, mais après la révolution de 1789, c'est en plein procès qu'on a voté une loi d'amnistie. Et interroger les lois d'amnistie qui ont été votées ici au Sénégal, qu'est-ce qui est plus dangereux d'être un séparatiste, n'est rebelle Et pourtant, on a voté une loi d'amnistie ici. où étiez-vous Vous savez, c'est pour vous dire que pour avancer, les nations ont besoin de pardonner pour se réconcilier avec elle-même. Et c'est dans cette indispensable trajectoire historique que se situe la grande et salutaire décision de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall. sama gay, wa ex-Pastef ñëpp xam nañ ne duñ samay xarit faraluma leen bugguma ngeen gañe dara ci réew mais aujourd'hui il faut que ñu waxante dëgg dëgg gi xam nga mooy lan tout à l'heure quelqu'un l'a dit tey dégg naa victimes yi dégg les familles dégg naa ñi nga xam ne rey nañ leen mu am ay avocats yu bari ñoo xam ne nag seeni avocats lañ tey ji yu bees tàq bees pul yu ñu dajee ci paquet mais jamais musuma leen gis ñu taxaw fii nekk ñu rey

L'Iban, bañ mooy Ousmane Sonko bokk élection lii bañ mooy Karim bokk élection parce que xam nañ ne ñooñu bu ñu bokkee élection 2% pour cent sax duñ ko am xam nga wax ji lan la affaire bu affaire élection on est dans un pays qui a besoin du pardon le président de la République son excellence Macky Sall a dit que man li ma soxal ci réew moy defuma un troisième mandat yokuma sama mandat j'ai réalisé énormément de choses dans ce pays j'ai travaillé à ce que les sénégalais mën nek ben benn fexe naa yi nga xamné ne nek ci réew mi fu ci nek ñu am foo xamné dinañ fa jaamoo yalla ci walu jangumi ak ñi nga xamné ay kilifa diine lañ lima soxla nak moy réew mu dal réew moo xam ne nit ñi dañoo dajaloo réew moo xam ne dañoo réconcilier wu ba nga xamante ni su ma demee Sénégal dinaa ko bàyyi ci dal ba ki nga xam ne moom mooy ñëw madame le ministre l'avait dit parce que monsieur le président mooy góor googu nga xam ne ku ko yëngal du bouger donc je pense que li mu soxla mooy kii ñëw ak ku mu mënti doon na doon koo xamante ni dina fekk réew mu dal réew moo xam ne dañoo dajaloo nekk benn pour que Sénégal mën a jëm ci kanam réalisation yi mu fi mën def mën a ci kanam je vous remercie Merci, chers collègues. La liste des orateurs est épuisée. Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à la représentation nationale le vote de la présente loi d'amnistie générale. Monsieur le Président, en cet instant dont chacun d'entre nous mesure la gravité et la solennité, chacun d'entre nous ici dans cette salle, comme tous les autres